bis bi itam noonu mu ko waxee muy bisub cant dégg ngeen ni wax ci cant gi man damay dugg ci biir li wax rek jàngat waaye mën naa bañ a fukki minute euh, cant gi nga xam ne moom la wax gën gën gaa doyeb cant ak siyaar bi nga xam ne ak cant la waaye murit moo koy woowee siyaar ndax mboolem cant goo dégg murit boo dégg mu naan ñoo ngi siyaar rek ak cant ko lal te siyaar boobu Sëriñ Tuubaa moo ñu ci jiitu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam murit maa ngi siyaar Sëriñ Tuubaa ko njëkk def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dana tël mu ne ko maa ngi siyaar mu ne ko nooy siyaar ana kii siyaar ko moom mu ne ko man Ahmadu ana siyaar bi yasurruka la ko wax maa ngi siyaar mu ne ko kan la mu ne ko min nii mu ne ko fooy siyaare ci maar mi wala ci nit bi mu ne ko xay suma kunt foo mën a nekk rek yonente loxo yi ne ko bismillah ana siyaar bi mu ne ko fuhaadi wa ruuxi bil busaarati saa tey ba mu demee ba ca biir mu gis ne siyaar bi daa am lu mu ci fàtte woon lu mu ci waroon a joxe te dajee bokk moo tax mu dab ko ne ko loo daxal niyaati wa xilmi wa xidmati wa rooxi wa jusmaani wa kulli bila sukk kon kooku moo dàq siyaar koy siyaar kenn mënu koo def ci ab siyaar cant googu itam buñ dajaloon mboolem cant yi yàlla sàkk ci adduna ak cant guñ mas a cant yàlla ñu boole ko sant suñ Tuubaa tuxut ñu jug fi ñu taxaw ci sant suñ Tuubaa mënta ne am ko xamne da tok daa ba yàgg mu jek jek ne bërit ne day sante sin fek mu japp ba wara julli ne cas der bi mu ne da ko yetti sin bi sante ko dem ba mu depp ndax sin bi ko joxone mu ne këf satalaga dem bay dem muy lu ko sin bi joxone mu dugg ci neeg bi di lal bi muy lu ko sin bi joxone mu ñoddi mbàjj bi muy lu ko sin bi joxone mu ubbi ay waxandeem lu mu tànn ba ne sëñ bi la koy yët muy la ko sëñ bi joxoon mu xool xool xamul nu muy def mu wa fopp ñaareel boppam ñaareel loxoom teg ci bopp bi rek yuuxu wuti wuti kër sëñ bi maa ngi fekk sëriñ bi toog toog yi ne moo wii mu daan toogee mu sëñ Abdou Khadir daan toog dal ci kaw sëriñ bi daal di yuuxu jooy sëriñ bi ne ko ana lu waral jooy ñaan tifli ci bopp bi mu ne teg mu ne ko mag ñi ni ko sëñ bu saa waxee daa am ñu daan wax ak sëñ bi sëñ bi daa mën a tontu moo tax booy wax da ngay xam li ngay waxe moom dana ko mbàkke bu fi boo ko ne woon ko ne woon mbàkke dama doon sant mu ne ko mbaa di yaa ngi koy doog a waaye da ko ne mbàkke ne fa ma nekk yëg ak cant gu ma bëgg a dolli ci yow bi ma jógee ba bëgg laa sant may def lu ma yëkkati ba nar ko indi ci yow muy muy loo ma joxoon lu ma yëkkati ba nar ko indi yow ci yow muy loo ma joxoon daal di jàpp ci mbubb ne tëppee mbubb mi ne yére bi ma sol sax yaa ma ko jox moo tax bu ma bëggee sant xamul nu may def lu ko serigne bi tontu dana ko diw mu ko mbàkke mu ko lolou yak ñepp ci turu mbolam ko wax dal ne ko laxaj ci man ci cant kenn ci yeen mënu ko matale waye yalla mi ko xam mi ma koy soti waye ama ngeen ma cant nak waye dama bëgg nga laaj nu nu ngeen may sant ngir mu noppal leen mu ko mbàkke ku lu bëgg sant nu mi def mu ko bu war war wala mu ne bëx bëx yegg leen na mana yegg go ngeen yegg ne cant itam fajal sëñ tubaa aajo fi ne ñu bari liggéeyal sëñ tubaa la ñuy wax xanaa kay liggéey suñ bopp ci sëñ tubaa la ñuy wax suñ bopp ci sëñ tubaa waaye sëñ tubaa moom aajoom faju la bu yàgg ku faj aajoom loxoo xitaab bi waxaaj yi kullaha xadiyat la wax loxoo xitaab bi waxaaj yi kullaha xadiyat bisaadati ahlu badrin musiril madadi nga xam ne ahlu badri ñi ñoo ko ñoo ko seet kon kooku kenn fajut aju kenn liggéeyalu ko dañuy jéem a liggéey ci moom ngir mën a jariñ lii sëñ Moussa doon wax léegi Sëriñ Tuubaa léeg-léeg am na nooy waxe ci moom ci jamono jii ñu jàpp ne da ngaa bokkaale te bokkaale woo fa mu ca yàlla ak fa ko yàlla féete moo ko xam ak moom waaye fa mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fa ko yonent bi féete moo ko xam ak moom waaye kenn ku nekk ci ñu mën ngaa waat ne Serigne Touba lim defal yàlla kenn mësu ko ko defal lim defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mësu ko ko defal te ñun murit ci Serigne Touba lañ xamee ne yonent bi dara ji ci ko waaye jox ndekete weesu na ci ñun Serigne Touba tax ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi sëñ tubaa moo tax ñu bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam ndax mag mu toll ne sëñ tubaa nga xam ne nattukaay yi gaa yi baax yi bañ leen cay natt bañ nga xam ne suñu borom ku agsi ci martaba xutbul xaw su wala xutbu samaan am na ak nattukaay goo xam ne ci lañ lay dugal ba xam mat nga ko sëkk ñu doog laa jox numéro bi nga moom bañ nattee gaa yi baax yi bañ jàll bañ agsi ci sëñ bëgg ko natt sëñ bi nee na si ñoom nattukaay yaa xat ci man waaye xëjuma ci ñoom nattukaay kon kooku amutu dayo dama ne kooku bu taxawee fee am comme jàkkaarloo naan ko masa yaa ko yaa kulli kooku dara boo amee comme taxaw jàkkaarloo moom naan ko yu bajjilu kulli kullakal yow ma maxqadin wa insha rabbi la saa wani kooku dara kon ñun ci yonente bi lañ xamee ne ci suñ tubaa lañ xamee ne ndekete yonente bi dayee bu ko waaye joxees na waaye nag moom lañ ko joxoñ moom lañ ko joxoñ moo tax mu langal ko ko rek fa yonent bi taxaw rek mu taxaw la yonent bi xalaatut njox di woo yonent bi ne ko kenn du ko wax day boole wenn bayit ci xaside yi woo ci yonent bi woo ween woo xam ne kenn musu ko woo yonent bi ahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna mahmuduna farxatuna wal juudu musiri diye نقي تقي صالح وهو مسلم نجيب قريب ساكر وهو ساكر جواب كريم بالمكارم يحشى نزيح بلا قس حليب محلم سقي بلا من كلام إلي بابا أنا لا ينتبه بوق سيني بي سخلق ام لا ينتبه صلى الله عليه وسلم بوق سيني بي بغ أبدك جاكار لكم سانغام am na lu muy wax ak moom rek mu summi la mu yoroon jox moo tax ba yonente bi dina tël lu mu ko njëkk a wax nasaafatuhu kulli min na lax wi taharat saxaaba yi ne ko kii de koo fay ndax ñun li ñu defal rek àggugul foofu te ñun mënuñu koo ko noo koy faye mu ne danaa ko fay suñ tubaab ci fitwaak jom ja mu ne leen danaa ko fay ñu ne ko mënoo ko fay mu ne danaa ko fay ñu ne ko loo koy mu ne wa sunnatuhu insha rabbi ubay mooy suñ jotaay bii mooy suñ jotaay bii ab serigne ab bi dafa wara bëgg ab sëriñam ba bañ ko yemale ak dara bu solee dara ju rafet sax nee ko ya fi dak dara sa garam bu amu fenn suñ tubaa ba suñ tubaa bu yonente bi ne teul sol garam bu bu baax da ko xol xol xol xol ba yag mu wooyoon ko wooyoon mu neex lakal faddu doyna sekk de waaye ya muxtar lolou doyna sekk mu ne ko yaa sayyidal wara عليك السلام الله يا معصلا يانتي بي وكنت وكنت با دراجي بكون نكو منا وا منكو واو يوا ندخ لا انت امام مرسل يوا قد جاء انهم تلا خوك في الاسراء والكل قصلا سبحان الذي اسرى بهذه ليلا سر الامين مع الامين فوق الامين المشيات منكو لبستا سولغا سيابال مجي مسيريس بو خامني امول اوتريس wal fadli waaye deux minutes bi ñu ci def nak wal xulaa ak mahana mi ñom ñep dañu kasse waye limi rafet rafet rafet rafet rafet wa fika min al akhlaq ma ahdisa al kulla sa jikko ju bax ju sel ju di nga lambo mo genn tar bi bu ko la gis di fer fer kon suñ tuba mu ñu gën bëgg ab sëriñam ni sëñ bi bëggee yonante bi buñ ni bëggee woon sëñ bi malaayika yi wacc ci suuf dañu defal liñ bëgg ñii si sëñ Busra doon wax ñoom ñëpp amoon nañ lu baax waaye dañoo ñëw jox ko sëñ Tuubaa mu defal leen la gën ku ne am nga lu baax waaye sëñ Tuubaa yu li gën li gën sëñ Tuubaa moo ko yor ñu bari dañ naan sëñ Tuubaa dañ koo may nag ko dañ yàlla mayu ko dara yàlla mayu dara sëñ da koo jaayante mu am mu dem jënd ko ñu ne ko du fi amee mu ne dana fi amee ñu takk la jaarale kokki jaarale Louga mu dem Ndar te booba xam na ne day dem Serigne Touba bi muy nekk ci jeewal xam na ne day dem ndax asiru maal abrari ndar la ko ndar la ko taalife te wax na ci li xew ci géej gi lépp kooku ay bëtam neexoon xamoon na li xew waaye sëñ Mourou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal sëñ Mourou Moustapha nee na aw fit ak jom kuñ ko jiñ ko dul Sëñ dañ la ko jiñ waaye doonoo ne lii la xamee ne Sëñ Tuubaa mii keneen la ko dul moom nee na mooy keroog bi mu ne tegg ci tànkam ci kaw fas biñ ko séenee muy dox yëngatu gee tax ñu xam ne nit la ngir tuutiwaay waaye kenn mënu koo xamee ngir sewaay bi ak tuutiwaay bi woos kenn mënu koo gis ngir tuutiwaay bi waaye ba mu ne tegg tànkam te fasoo ba mu ne yëkkat ba teg fasoo nee na kuñ masa woo ci jamono yooyu lëndëmoon na lëndëm koo xam ne kuñ ci masa woo kuñ ci masa loo xam da nga loo xam da ko naan loo xam ko takk ngir mën a mucc ci noonu aw xur sax boo ko dee jéggi lu ne danga ko def lu ne danga ko julli waaye li leen xam ne suñ tubaab mii keneen la ba mu ne tekki te kaw fas wa bi mu yëgee gees mbooloo mi bari lool waaye lu mu leen wax tàllal leen ma ñaanal leen loolu ab sew sew la suñ tubaab wax na tàllal moo tàllal loxo ma ne te moom kenn la di dem mbooloo nekk muy leen tàllal leen ma ñaanal leen am ko na dal na fi suuf mu ne ko neel fere yi nañ dal ni ma dikk gëleere dem gëleere wu ta bobu mi ngi mi ngi jàpp bañ ko yóbboo biro ndar lu ne ñu def ko fa lu ne ñu wax ko ko la suñ tubaa la suñ tubaa redd la suñ tubaa bind man gis na la fa suñ tubaa signé gis na lepp boko totalé totalee firi ko mooy allahu rabbi wala usriku bi loolu loolu ndax lu fa lu fa lu fa wax raditu billahi rabban neen na si im sut jaxate kayit كيد جيما ناري بلال كيد جيما توابي جو صاحب بلو مجي نخ إنما المسلقون نجو سنة تخص الله وقت دوما لال سن دارا كيد تبقى ملجل سنة جه لن تسنة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دليلا وبسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وإماما بنتي بك يقول ولا أحد الله وصمت لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد ولا ولا من يقول وكيل ñu daal di def décret yóbbu ko Sardin Bessé Sardin Bessé si yëm suñu jaxate suñu tubaab nee na ko foofee tubaab yi jàppoon na ni am na ñu bëgg ci man ndax bañ ma ma fa dugal di ma fa dugal bis booba la tubaab bi njëkk am lu ko neex ci man ndax dañ ma bu max ma mel ne kuy bañ ñu jàpp ne damaa ragal gaynde gi moo tax ñu bu ma xaat ma ko ñu jàpp ne damaa ragal gaynde gi ñu daal di tàccu ree naan seen ñollu daal di bég lool ci gis gi ñu gis ne damaa ragal gaynde gi waaye boobu gisuñu li may gis sa borom moo ma feeñi foofee ne ma sa sang ba yaa ngi a gise ci tund ne ko ko kon nam nga ko lool xaar ko foofii sardel si mu ñëw ànd ak yow bi moo tax ma taxaw di ko xaar bi ma tubaab bi di ba ma bi ne bisimillahi daal dugg ak bëti woom la ne rikk ma koy jari xasida yoo xam ne di ngeen ko gis fii di ngeen ko gis fee loolu yi la Sëriñ Tuubaa wax kon allahu rabbi wala asuku bihi la wax foofee ñu yóbbu ko ñaari guddi ndakaaru Sëriñ Tuubaa bu dee bay fàttaliku lu metti boobu metti na isa sakar salikal mabita wa salikal amina wa kon loolu metti woon mu tënk naa ko waaw jeex na kon foofu lu mu allahu rabbi wala asuku bihi mu jóge foofu jàll fan dem ba ci géej gi ñu yóbbu ko maa yomba lu mu wax allahu rabbi wala usriku bi ñu gën a taral métit ya gën a yokk nattu ya gën ko teg lañ koy teg yóbbu ko libar limbar lembar na lu wax allahu rabbi wala usriku bi ba mu demee ba xam ne nag coow li nar naa bari ci la leen waxee waxam ju siiw joojee ngir coow li mën a mooy lan mu ne leen kaay leen ma wax leen loo xam ne su ma leen ko waxee ci ngeen may bàyyee mbaa ngeen def lu leen neex ci la leen waxee waxam ju siiw ja mooy bis naka tey lii ngeen may def jàpp ne tax ma ma ma ma raf mbaa ma bàyyi li may def allahu akbaru mimma kuntu afxaluhu walastu aksa wala arju si wallahi sikri wa sukri wa ridwaani wa muhammadati bil xalbi wal jismi wal aqlaami lillah te boobu mi ci géej gi rëfut amul la ko déranger ci ci ci ci ñoom mujj sax far mujj sax far mu wëlbatiku sax far moom sëñ Tuubaa ci boppam moom mu jàkkaarloog noonu yi ne far nag di leen di leen di leen di di leen di leen wëlbati ci li nekk moom ana ban prisonnier lañ ma sa jàpp ana ban prisonnier lañ ma sa jàpp muy seet lu seetut lu ko fa jëlee xanaa muy seet lu ko fa téye tubaab bi danañu koy def waaye lu leen wax dana leen dem leen dem leen dem leen tuubi te ñëw ci li ma nekk wa man yusallis faridan malikan samadan fa jaahilun wa laa kulluhu al alamu te bopp noonu lay wax naan leen dem leen tuubi tuubi leen te bàyyi seen caaxaan yi te boobu tubaab bi lay waxal tuuba lahu yaa sami taslis fi xajalin wa saari woo xam la mawtin baax doon na dem te boobu mi ngi yëg lu ëpp ay téeméeri junni tonne ci ay métit ba nopp si tere tere ko kon suñ tubaab lu ne def nañ ko ko ne wax nañ ko ko te rëfut am na ci ruq boo xam ne ci Gabon bañ ko fa yóbboo euh, xeeti jàpp ya fa nekkoon maanaam par ya fa nekkoon ak gaal yi fa nekkoon njàppul benn loxo lañ fa def ndax xam ne moom képp fay nekk mune fofé amna ci bis bo xam dafa tali dafa bind ay xasida ba sun borom taw suuf suuf aw taw taw ba nopi ne ko aw araf bu ci faré ma ma ma ma yàq ligé bi dindi la mu daal jël kala gi ndaysan fuuf ko ci ngir bañ mu mu taw ba nopi yonent bi sa son wasallam ko ne ko dama bëgg nga dox ci tefes tefes gi yëkëtil ma xasida mu dind kala gi mu kala won tak ko ci ndigili jël gënal kala gi dal ci muur xasida ngir bañ mu toy mu dar ay noppam taw bi taw yuur taw yuur la ko ci sun taw yuur muy taw galas mu muy tefesu geej gi di taril señ juba ay di taril yonent sa sama ay xasida mu koy yonent bi di mooñ tartar yi wañ ci wacc ci muy tari xasida yi neena bi xasida gi rek neena mbolam lu ñu dund ci ci ci te nek ci bir géej gi dana pël ak ci sama daj kon suñ tubaab moy jankatu khassida bu mag moy jankatu khassida bu mag ta khassida yi ne ko sëriñ bi waxale gi moy pajuk aajo moy sëñ bi moy suñ tubaab da am nak ben ben ben ben ben tosi ki bu ci nek moy lam khassida dang koy jang ba yàgg ngaro say mass nga koy jang ba yag nga yek lu ken yegut ngay yag ngay jang ba yag suñu tuba taj kap sa xol fess ko del ba dara safatu la ñu di tuddee la dof sa suñu tuba dof rek yaangi ngi yaangi yaa nuru señ bi nek nak suñu tuba bam ne ñok ñokket wala si na fi na naaje ba mu ab dof lañ ko tuddee woon mu nan xalo safihoon waye mu dina dof bi di fajj ku fop ko wop mu fajj mu fajj ba yag mom sax muju febaratut motax di ngat kat yi nan sëñ Tuubaa dégg nañ ko mu naan yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kuntu xablu tabibi kon léegi euh, euh, alxuraan nekkatul médecin nga xam ne dañu bëgg dinga foofu sëñ Tuubaa tontu leen ne leen médecin lu ko nit di ñu ne ko feebar mooy leen man feebaratuma dama wér ñu ne ko lu la faj lu tax nga ne feebaroo day nit mu ne maha balaa ii wa maha amraadi wa birrida tanxaadu li axraadi ñu ne ko da nga wax jégguñu ko bu baax de mune legi parani bahi min al amradi wa kabba man ankara bi wallahi al azim ku gem ak ku ñàkk gem ñari ñul yalla lepp min ci suñ tubaab nafaxani wa bi yan wara lo suñ tuba wax bu ñe suñ tuba du nit ñu naan lu tax ñu naan sëñ tubaa du nit nangam sëñ tubaa moo ne yàllaa man ne sa pet ci nit ñi teg ma dee nasaxanii minal waral baaxil xatim sëñ tubaa moo ko wax man wax mu fab loxoom teg ci sama gémmiñ ne ma bul wax maay wax yàllaa ko wax loolu bul wax maay wax noppil yow rek xalamahum moo leen xamal ne bi a abdul xatim yàlla leen ko wax kon xasida bokkut ak xasida ku dul Sëñ Tuubaa xasida Sëñ Tuubaa bokkut ak xasida ku dul moom xasida rek ngay toog sa di ko jàng lépp di la fa fekk lépp di la fa fekk jànkati xasida yépp lu ñuy def toog muy dox benn waaye laaj na ma ko looy liggéey mu ne ko toog muy dox mu ne ma luy toog muy dox mu ne ko toog mu muy dox mu ne ma ah, loolu fu mu am ko ci Sëñ Tuubaa rek képp nañu bañ am complexe ci kenn kennal seigne touba seigne touba kenn la du ñaar kenn la dama ko wax lu bare bare bare bare bare bu ñe seigne touba du nit ñepp juk te yalla taxut ñuy wax de faral lu yalla de bañ seigne touba tax ñu di ko wax wala bok ñak xam seigne touba man jep man seigne touba kenn bañ na kon seigne touba buñ né du nit fa ko ko tollu ba né du nit mo fa tollu lutax njabar kat bi ci koñ bi buñ la fa yobbu mo wax la saw tour wax la li lay fajj wax la li li li la metti wax la li koy faj wax la fi mu dalé dale génné loy wax ki du nit seigne surtout ki ma bolé du nit xolal ngor si def bal bi nim ko dugalé du nit xolal mbër mi nim ko daané da koo galgal mbott ko du nit ta bu ñu seigne touba du nit ñuy bëgg ray yalla koy bañ señ tuba do nga tax ñu di wax waye farale wuñ yalla waye nak señ tuba moom bam bam bam rakko mbaar ma ba mu dëgër liggéey bi sëñ tubaa bi ci am am mbaar ci misal ñenti jën nekk ci gaay yi dikk ne dañu yokki jën bi te señ tuba neena na jën wi suñ borom ko sax bu nopi rakko ko ñu ne ko gaay ngay yangal jën wa de mu ne ma ngay gëna deugur de mo ne darajati taxloo walay sa tam xafit ñu ne ko gaay ngay ko sempi mu ne wa man naha min al a xat di xufit ñoom seen tànk yaa ngi gën a dugg ci biir sama mbaar mi gën a jóg ku mënul ci nguru yàlla gi dara mënoo ci may suñ tubaay dara léegi nag daa am loo xam ne moo moo moo dese nit ñi daa am ñu bari ñoo xam ne ci ne bàyyi loon nit ñi suñu tubaa lañ bëgg li fi fexewuñ ba jant jant bii di fenk ci soow ci ci ci ci soow bi mënuñ ñu bàyyi loon suñu tubaa kenn ku nekk ci ñun man ci sama bop la koy tambalé suñ tuba ñu gënal lepp ni ko suñ bu sara wax suñ ndey ak suñ bay buñu ñu bàyyi la woon suñ tuba ñu bàyyi suñ ndey ak suñ bay japp suñ tuba ka ëpp daraja ci yalla bu dit suñ tuba bu fekké da am ñoo xam dañu japp ne am na ko ëpp daraja ci yalla bu dikkoon won ñu ay ceeb bi aljana kenn ku nek mu wax sa tour fekk nga dem mourid yaakaar suñ tuba mu wax sa tour ne la sa aljana mako yor nga ne ko teyel sa aljana suñ tuba suñ aljana way suñ àjjana ji ñuy wax sax man ba tey am naa ci ab xalaat tubaarkàlla bëgg nañ ko lool waaye sëñ yor sa kër defar ko ba mu mag ba mu àgg nga def te néegi ñax yu murite sàkket ko ba mu wër nga def fa ay mbaar maase na ko ba mu dëru ab kuréel taxaw fële daa jub jës bi kafañ ngoon gu baax ñetti ñetti ñetti sëñ Moussa Samb toog ñuy waxtaane baaxu sëñ Tuubaa ji man sëñ bi loolu xaw ma àjjana nu mel waaye jëpp ma ni mën naa daa àjjana tey murit yii ay àjjana ak yooyu yëpp ñoru leen sëñ Tuubaa moo leen ñor loolu dañ koo xamagul ba tey bu ñëwee moo demee ci yàlla boo duggee ci bàmmeel da nga xam ne nangam ak nangam nangam mu ñu àjjana sax buñ fa duggee ana sëñ bi la ñuy wax fu sëñ bi ne mooy suñ lépp mooy suñ lépp sëñ Tuubaa neena na wëlërante na mak ki yor aljana sama borom ko len mom ñu ñu lon ko ay baram ki nekk sawara suñ suñ Tuubaa suñ borom da ko ne bul jaar fu fu ko fu ko gom jaar sa bu ko jaar ridwaanu naal xaasinu lin nira lil jinan ha ah safaha al qadim bil banan lol suñ Tuubaa mako wax ridwan mi nga xamni ma yor kan tan ak ahmadu mi loxo lu ko ahmadu wax mu def maalikuhum alxaasinu lil niiraan laa yantahi nahwi wala jinaan fu ma jaar du fa jaar suñ tubaa li ña li ñii laaj ci bàmmeel dañoo ragal mbiram am na ku faatu ci njëriñ ab socc la yor fekk ñu fekk bi ñu ko waxee si sëñ bi ab socc la waaye daa jël socc bi rek nañ ko moom biñ ñëwee mu ne xanaa socc boobu ma leen joxoon jaaxal na leen ñu ne ko mbaa mbàkk mu ne moom ma may jaaxalu ko ndax socc ba day mënal na ko foofee mu nekk lu dul socc bi fofu la tollu yalla fofu la ag yalla metti yooyu li muy metti metti metti métti lañ ko don tek la metti metti metti da ca nek di ca nek bañ yokkat ba yalla dox ko lepp seigne touba neena am sutu mu ko mbacke so gisee man sama borom lima ci am mu ne ko wa mu ne ko seigne borom dama won limay li ñaan wax ma ni koy ñaané samay beut ne jar sama xalima ñaw sama da far tatayeelu waccaal rek malaktani wajhal wasalu di ñaan bi ñaan ba yàgg suñ borom xëpp ko lépp mu naan malaktani ahtaytani naajeytuhu yan xaadu lii akramtani ahbabtani nafaxtani xaraqtani yan xaadu lii ku dul sëñ Tuubaa ñi mu ko wax xasida googu suñ gudd gudd gudd gudd ahbabtu rabbal alamin sëñ Tuubaa rek koy wax waaw sëñ Tuubaa képp koy wax te xasida mas naa koo dégg sëñ Bass mu koy wax xasida ki muuma bu munta wax moo ci gën a mën a jariñu sax kiy wax kii ngay ubbi di xool ndax xasida moom boo ubbee rek tàmbali na li muy def ndax isa katabtu aw xaratu xarfa xustu mu nan too doomu saakal xarfa arab fu ne am na lu muy def ci nit ki ni ni ko suñu bu saa waxee léegi booy jàngi xasida yaa ngi def lépp te xasida day nettoyé ab xol waccal li kal karimi khatti barakatan lil usri saa taxat te lolu budu du waxtu wi liggey bi seigne touba liggeyal yalla ba yalla jox ko lim ko jox seigne sutu jaxata neena seigne touba neena sa borom bama ma ba ca mom dana ma sama nguur gi du jox kenn waye yow sàkkaluma la fi foo yem ndax neena la nga waral moy bayit wo ci mawahib buñ koy ñaan ne nda mel suñu borom da nek ci barap mu fekk ko fa am buntu bu mi bañ ko ko fegg suñu borom suñu tuba taxaw ci buntu bu fegg ko borom buntu bu ubi mu ne ko ana kooku mu ne ko ahmadu mu ne ko liñ doon joxe lepp jox nañ ko li kenn du laaj ca kenn du ko joxe fi dess mu ne ko yaasal jalaal yaasal jalaal nee na mu jaaral beneen buntu mu faaxu fekk ci buntu ba fëgg mu ubbi ana kooku mu ne ko ahmadu mu ne ko nee woon naa li kenn du laaj ci kenn du ko joxee fi des mu ne ko yaa mu taxaali nee na am sutu mu ne ko mbàkke mu ne ko yaa sa jëlaal li mi foor mu taxaali a foor nee na ma gën a yaa mu taxaali nag gis naa suñu borom yokk màggaayam mi xaw a funkiwaat gën a rëy wan ko ne ko may yaa mu taxaali nee mu jàll beneen bunt mu fëgg mu ubbi mu ne ko ana kooku mu ne ko Ahmadu mu ne ko li kenn du laaj ci kenn du ko joxe mu ne ba mu jàllee fëgg nag nee ba mu la gis ne kenn du laaj ci kenn du ko joxe mu taxaw mu ne ko ajib du hay mu ne ko lu ma lay jox amatu fi kun fa yëkkoonu ga ma yoroon jox naa ko bu yàgg am sutu mu ne ko mbàkki mu ne ko kun fa yëkkoonu ab dokk la waaye ca cat la ak tànku la ku ma sa jëfal suñu borom li tax mu ne la ca wat nee na la ca wat comme que ne wattu del si woon ndax lam la ne woon wattu mënu ko jeexal adduna ak alaxira waaye am sut man day bu la dana de fu ma taxawee ci buntu bi ne ko watt mu ne ma watt ma dikkaat dikk ne ko laara biraara mu ne waat watt ma dikk ne ko laara biraara mu mujj laara biraara ni soof suñu borom mu mujj daal di soppi kun fa yëkkoonu googee ay jëmm ñuy taataante ma indi loolu mooy yaquudu li kun fa yëkkoonu haaj yi min ka bi laa xeq wala taxaaj kon sëñ Tuubaa lépp mi ngi ci loxo bam taxé ci buntu ba ne ko dama bëgg nga jox ma li kenn mas na ko laaj mu ne kenn su ko laaj te di su ko jox kenn mu ne ko ya ma waxon ne lépp lu ma lay ñaan ni ma la koy ñaané neex ci way may nga mako bu yàgg madal al husna wa maddali sayyid man li yaqulu hak hab lu ma diyal ma ko waxon mu ne ko ya ma waxon nit ne ma lisanul hal ya ma waxon ci lisanul hal ne ma alif bila taraddudin falahu min kax billah ahmadu waxal loo waxati ma def mu ne ko waaw mu ne ko kon ajib du laaj te kenn du ko joxe mooy lan jëmmi suñu borom suñ tubaa ñaan ko ko moo tax bu ñëwee suñ tubaa ñuy wax suñ bay jaxatee ko ne war ngaa sant de suñ bi ne ko alhamdulilahi rabbil alamin lu nga wax ko ne ko war ngaa sax maanaam woote ñu lay sant le suñ tubaa lay waxal de war ngaa woote ñu lay sant le waroo toog waroo taxaw foo tolloo ngay wut ñu lay sant leen foo toll ñu alhamdulilah mu naan sëñ bi ne alhamdulilah rabbil ko mbay jaxate doon wax mu ko ah gis yàlla ay yëf rek la ko may mu ne ko waaw mu ne ko yow dalaa ba jëmmam la la may dalaa sopp ba la la may Cheikh Ibrahima Fall la ko suñ tubaab wan ba mu ba wax ko la mu ko wax boo ma ma wax la sëñ Bay la ko suñu tuba won ba wax ko lam ko wax boo ko won ne wax mo mo wax la ko lii siñ doon tam lettre li lay amoon suñu musaa ma sax sey bi dir kisbaar ba rap di waxtan ci yonent danaan def ab sahaba lay jël wala yonent mu da tam li waxtan ci ci yonent daan dem ba tay ñu waxtan ci mbirum musa da tam musa bi ab yonent la bo xamne yalla ko yebalon way da yebal mom bu ñu wax firan tam li suñu Moussa bu jub jox na ko Mbàkke waxtan ci suñu yoonu géej gi gënal fuuf te moo gën ci ñun te daa ne yow kooku ngay yaa ñu ko gënal ñun te yaa ko gën ci ñun sëriñ bi ne tekk ne waaw moom day ba ko suñ borom ba ko na di dàq suñ borom wutiloo ko géej gi mu wuti géej gi ba mu demee ba àgg mu ne ko yët sànnil yet yi mu xar firaw na lab bu doon mën a bala maa sànni yet yi firaw na di lab sama yirmane mayna na ma ma ñaan suñu borom ne ko te ma ko durti junni firaanu mu tub kon suñ tubaa amul amul lenn lépp mu baax il faut nak nag buñ ci bëggee jariñu ñu jox ko teg ko fa ko yàlla teg te bañ wax yii ñuy wax suñ tubaa amul morom kokam sax amul morom bañ moromante ak moom kokam fu ma mas jaar sax amul morom ku weddi demal ngelam aw fas rek aw fas aw fas ñukay wër di fa siara di sànni seeni alal ngir aw fas la do fasu kesse fasu seigne touba la won motax yakarna yaakaar ye gën ni mborom fasam yépp lako seigne touba mo kon bu ñu am benn complexe ci kenn seigne touba seigne touba kenn la du ñaar boole wuñu ko yalla kenn yalla yalla la yonente bi sallallahu alayhi wasallam du yonente bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba di seigne touba nañ ko teg fa yàlla teg léegi la coow li bari nag ku ne fëgg sëb di wax waaye borom allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun rahimun latifun la may sal sama daa ba mu koy wax ak fa mu ko doon waxe la mu waxoon sëñ maam Cerno rek bi ñuy jàng xasida ba yàgg muy fettasu mu ne ko Cerno li ñuy wax daa neex xanaa mu ne ko waaw neex na mu ne ko anoonu neexe anoonu neexe mu ne ko dama xamut ñi koy jangala dama xamut daajin wi la damaa xamut ba xam jëmmi xasida gele ci boobu dama xamut xalima gi ko don yenké wal mu ne ko lepp nga ci bir de waye mu ciarna mu ne ko mbàkke mu ne ko bayit yoy yu neex ci yow de fañ ko don waxe keneen kuñ fu yóbbu won ku dul ku dul man da nga tala wax la yandul yo sin tuba musarraf raf musta yox yoxi musta deltu ginaaw te lu ne def nañ ko ko mu bàyyee ci coobare taw mu ne mën na ko faj law an na nii la ma turikil kitaaba mujahidan bi sawi xitaaba la maata bil boobaay kullu kaafir waaye lu mu war laakin xafawtu an jëmmihi naasi xafawtu anil aadaayi tural li wa si man nafawum bi xëyri sama la su addu foofu suñ tubaa kon amul morom kon ci tënk rek ba mu amee loolee képp ku suñ boroom di wuyooti ci wuyuk suñ tubaa la lay wuyu ndax suñ tubaa moo wax ne ajaabani ijaabatan lam takku ni wala takoonu li siwaaya bi ko loolu suñ tubaab moo ko wax amul kenn ku muy wóoyatu ku moom te xasidaam yi waxuma bi nii waaye képp ku nar a texee suñ tubaab nee na xasida yi dina yëngal sa kon xasida yi examen la examen la ci nitu yàlla xasida yi kulli man lahoo sahaadatan wali yi xaar am loolu suñ tubaa moo wax tay barki bi mu def ci ci xasida yi da ngay xey xey amuk wilayatu do ko yek da ngay xey xey amuk wilayatu do ko yek su ko defee nga nekk kilifa te do ko yek ñu naan diw mi barki dem rek la fi nekkoon dugg ci xasida yi tàmbali nangam fekk booba la ko def xamoo ko yow waccal kitabati yak kulli mursal ya man waxam tali ujur rasul lolou mi ci bir xasida yi ku koy jang mu def la noonu وليهب كوني ككل مرسل مرسل واجعل حروفي كفها الرسل دفل سما عرفي متولب جفي يرنتي كوكون ñàkk morom moom waxante ñu ko xool leen tasawur zixaar rek tasawur zixaar téere bu ndaw bi la ñuy wax rek téere bu gone yi mag ma ko fi bàyyi xam mag ma ko fi bàyyi xam man ak man a la guñ ub ba togg ko ba noppi kubéer gi ñu ko ubbee mooy tasawur si xaar waaye boo ko ubbee ñam nga da nga fekk ñamu mag wa kaw nu woo sahaadata sidyaani wa siibi wa subbaani wala siwaani ñëpp ca xaj waaye xoolal xasida boobu sëñ bi ak xasida la da koy jàng ba noppi am ci xam-xam am ci sa diine ba noppi am ci àjjana te kenn du la laaj ci bàmmeel benn téere xam-xam bu am ku suñ Tuubaa bu ko am am anna manaafisahu laa yasalu fi xabrihi munkar wa nakir wa xayru wa xayru wa xayru mooy ay bonus ay bonus yu baree baree baree ngi ci yu bokkut ak yooyu kon euh, na waxtu bi lee jot waaye li mu bëggoon tënk rek mooy ñu xam ne Sëriñ Tuubaa xel mu dal mim ñu yóbbe rek waroon naa tax ñu jox ko suñu ñëpp ben murid buy tok di xalat jafe-jafe ëlëk ëllëg amut te man damay wax ne xasida bu amutul xaw fuñu jëm bu xasida amutul xaw fuñu jëm dang koy xol ci ki dul jàng xasida ki ki yoonam nekkul ci xasida rek neexitu xasida bogo ñap ñap mas ci misal alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Saliou Serigne Saliou liggéey na ci liggéey bu reuy ci euh, neexitu xasida jàngal ñu neexitu xasida nekkati xasida ñu bari dañoo jàppoon ne la leen la leen a neex ay ndabak ay naan ak ay lekk waaye Sëriñ Saaliw moo ñu wan ne xasida lu ñuy lu ñuy dund la day bàyyi ba timis jot moo ñoom Yuusu Jóob mu toog ci njowaan gi woo leen ñu toog tekki ca koñ ba daajub mi daaj bu nekkoon di di ne tekk sax ña xam ne njowaan gi defut nii ñu ne mi daaj yi waa xalaam yi rek nga gis mu daal tàmbali def nii daa tàmbalee tàmbalee muuñ léeg-léeg nga ko mu ñàkk te xëpp fa bat léegi ñàkk ci bayit mu ree léegi ñuy xool sëñ Saaliwu ci neexit googu muy dund xasida yi ñu xam ne hee ndekete xasida aw neexit aw ñama ngi ci biir wu ñu war a dunde nga mer lool kon xolub ku nar a tax taxe moom fokk nga wuti Sëñ Tuubaa laanat liyal quluub wal abdaanu إن غابت الديدان والسنن أجابني من ليس يخفى شيء عليه لإنقاذ الجزاء والفأي ويو من دف يبت من جمع لخير الورى كليتي بعد مالكي وحني مات بلوان كساك خطوه سنجوا buñ nee am na ko defal yàlla la yàlla bëgg mooy Sëñ Tuubaa buñ am na ku tag yàlla palaasam fa mu ne mooy Sëñ Tuubaa ndax xasida yëpp boo koy xool foo ko fekk ma ngay kañ suñ borom di ko wax di wax màggam di tag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu baaxin karimun waahidun samadun haadin badiun qadirun wa huwa muqtadiru lahu fuaadi wa jismi saakiran wa lahu xaqdi wa xawli wa fahli wa mahalkado huwa al هو الرحمن المفرد وهو الرحيم الذي للسكر ابتدى دي كان برام يو خامنا فام كو تك موم ريك كو خاب و وبتكو فاب يننتبي تك كو فكو يالا تك نانكو ساكل منير ساكل بصير لو اسير بس السناي ينا كو كلام نان لو خطابي بلا عتاب ولا حجاب ولا حناي قايلا كيما يخلقوا منا لك خوارق من سلق الاهلك ليس لسابق ولا لجاهل kooku moom mu naan in raama xilman aw raama xulman aw raama sulman baaqi li xaay ñu ne ko baaqi li xaay mu ne fasaaka yuhda fasaaka yuhda kuy fasaaka yuhda mu ne ko koy wa yuhda saabi sa xaay kuy saabi sa xaay muy leen muy mu jur haadi mu jur kooku mu war a doon mu ne nuurun mu niiru nuurun mu niiru fu mu dëkk mu ne xaysun basiiru nasiiru bidaay kooku bu ngeen ko xamul xaamin nasiiru daahin daahin ba tey tudd tur wi de ndax lu mu waxoon loxo usul bi sa sanaay jëm waxoon ko tax xaamin na siiru dahin ba siiw lay su na siiru la siiw ci daay muskil li saakin bisir li baakin muskil li haakin wa siiw daay nungu wuta wax tur wi dem baag ci sax naan yaa ahla bari gaa yëpp tàllal seen loxo mu ne yaa ahla bari ñu naa mu ne xoojoo lu bari ñëw leen ci gaa yi ñëw leen ci lu baax li bari sa xaay كوك لوم لا ديفال مو ني ماي يوي بي مو دوخ يوي بي مو كجوي بلاتي خاي با ياغ يونت بي تيل مو نكو تشي خارامي دادي حارف هادي هان ماي هان ماتي هادي لين بودالاي سامي دا جيخنا واي سوما مانون سوب جيجي ايدا كرب ييب ما داكوي خليما ما تاغالاكو بام جيخ فكيف احوي متحن للمهي والمتمي للحقلاي دان كون غاي كاي لين سانت لما كاي لين كلنما lakin unaadi gars yi ñu naa mu ne kullal bidaadi ilaa himaani bilaa jëlaay ci la wooye yaa ahla barri yaa ahla bahri xoojoo li bëri bëri sa xaay di wax yonente bi lu kenn mu sédé waaw nimal xasim nimal karim nimal muqimul rochaay kaafil xaruuri xad fakka kabla xad basa fadla fa dur wala wana fu jay dem ba agsi ci saxaaba yi sax ne ko saxaaba yi sax dama leen tudd te dama tudd seen tur kuy xatiiq ñu ne ko baabi tariq mu ne baabi tariq baabi tariq ko mu ne mun aqilu sooxi këluri day Ababacar Abubakrin fale moom tudd na ko mu xadamaat tudd na ko mu xadamaatul am ndax mbokk mi ko doon laaj léegi ne si ñoom suuf jaxase moo tax sëriñ bi bàyyi ko fa waaw lu wér la waaye jur ma cay xuus waaye xasida nga goo xam ne sëriñ ba nee na ba mee tes xalimaam nee na ba nee wa sextu nee na dama koo séen muy waaxuy ñëw ba yàgg muy muy muy muy muy muy muy muy bar jërëjëf nee na si yonent bi la séen muy waaxuy ñëw Sëñ Tuubaa moo ko séen sut ne muy waaxu du ñëw di ma wax lii ah, am sut si am sut ne ko lu ma doon wax mu ne ko dana ma Ahmadu yaa ko daan indi mu ne ko waaw mu ne ko tey maa koy jël si waaye xool leen wa sextu Sëñ bët ba bi mu nee wa sëftu am na ponkal mu ñëw de jàpp ne moom lay woo mu ne ko toxoo ma jóg dellul fa nga jóge ne waar wa sëftu ka topp ca kooka ñëw ne ko bisimilah mu ne ko toxoo ma jóg dellul fa nga mu ne waar seen kilifa ñoom ñëpp ñëw mun ne ko toxoo ma jóg dewal dellul fa nga jóge ñu ne ko ah, ñun ñett ñi de ñooy ñooy ñooy euh, lébu yi nga xam ne ñoo fi gën a mën ndox te ku jéggi fii ñoo ko jéggi bu fekke ñun soxla woñu ne tane te neen bëgg jéggi bismillah xaral bokk muy leen su ma leen soxla won duma leen wax wasixtu nak ëpp na ci yew khusimtu lay wax wala ma ne àqastu waaye wasixtu ëpp na ci yéen moo ne ba mu ne wasixtu bu rëy mo tax mu jàll waaye ba mu ne wasixtu dañuy jàkkoon dañ naan bi rasulillah wax bi rasulillah de waaye daa jàll xol suñu tuba ak ak fam tek fam tek fa bëtam Iya, gitu. mune ko wa sixtu mu ne bi yakana dula wara deg mune bi rabbil has bi rabbil has ñu ne ko ah rabbul ars mune waaw ñu ne ko lu tax sil jodi wala afi ñu ne ko Moustapha nag ko fi ba mune mahal Mustafa. mag Mustafa, ñu andu japp ci bi rabbil has mu ne alwasixtu ñu ne ko ah mu ne maal muxtaari fan mu ne billahi bi rabbil xar si dikkaat xasida googu sëñ Tuubaa nee na boo liggéey yawma qiyaamatil akbar kañ wax ni moo yor li waaw alhamdi ba muy dara boobu lislaam ba nee na bu ko yor na gaaw yor ko de te téye ko bu dëgër waaye bu sama ñoon dikkee bu ca kenn jógee amna na bayit woow bu ko waxe ci ci ci ci muxadamatul am da na tit ba sànni ba dara boobu daw bi waxee loolu yi nag ayaa khadim al muhtar ba bari amna lu muy wax moy khadim al muhtar ba noppi ne ayaa xaadimal muxtaar te moom mooy xaadimal muxtaar waaw mooy ki toog ba yàgg mu ne man du ma def na nga ma waay ayaa xaadimal muxtaar wax ak bopam la tan sa sabu dede fa man yenn sowum fal matu matul mukhatal nee na yonent bi moo ne ñokki jóg woo Aboubacar nag Omar Ababacar Omar Ousmane wuy leen Ahmadou ñoom ñépp ku ne jóg yor la nga yor mu ne ki ci njëkk ne ñëw Aboubacar mu ne ko waaw mu ne ko ma kañ la ngir sama sang ma kañ la ngir sama sang dana ko Aboubacar ni siddiq soo sidqi wal wafa rafiqu nabiyil Mustafa xaaraan boobu Aboubacar yëkkati la mu yoroon jox ko Moussa dégg loolu أمر ديك من أبي أو أبي سامي فنانا شخصي نانا أمزق دفاع وفتنة أم نفا نخ بيموت دي أبا بكر أمر بيجا بنا دمو كتب مينيو نك ما يسب كسب قليل من بوال سما نيار كالتي نما يولا دي غلين يتب أبا بكر من كوا من مو تدو ملاك نين كتب دكاو نخ يكنا لاك مو أب تيرتي الله تدو كين كتب درك مو كمرة أبو عاصم الفاروق سرواه نادر به تسدين المصطفى يشيش سو ميكت لم يرم جاو عثمان فات نكو يا تو غاي منكو منكو بسم الله من افسان من دهام لا فان سال حياه يو كاي بروم توفيق نغا من امنكو لو تخم نكو لو نور سوما نور ني مو بو هل يوات نكو يا تو غاي منكو منكو بو سبتي المختار وهم نحمي هل ينا لا فقير من مجرد نم نيب جوخي لا نيون توك طيب، واي لوم واخ موي لين اصحاب رسول الله ndax yéen yéenay saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ne ko waaw ñu na nee na kañ wax Ousmane moom mu mujj tontu ne ma ñoo doon ànd ak moom ca Màkka ju njëkk ca ba ci Màkka ñu mujj ji ko yow yow yaay kan mooy leen indi xaddiinu ko yaa di ah, waaw tuwaar kal dafar waa muy leen muy ban la ko bëgg naa leen ngir sama sang waaye nag fillaahi xoolal fa mu tegaat yàlla fi rabbil arsi day dikkaat fillaahi yàlla képp tax mu bëgg leen bu ngeen fi ne ñukk yàlla may leen fi ñukk tey it wallaahu yëkkalu daal am sul xamul nga luy wallaahu yëkkaloo mu ne ko mbàkke boo ñu ko waxee ñu jël mu ne wallaahu wala ma ndokkul dani ko am sul kaas buñ massa ko gis mu massa amuk leer ca kaasu sama sang bobé la ko tokal mu ne ko waaw mu ne ko waaye am sul man de sama sang ba day yekati di ma tankal yekati di ma tànqal waaye daa mujj mu japp su japp sama loxo yeb mu ko don tankal ndax lu ko waral nee dama ko ne may ma tuuti ma wax sa borom ñaari baat nee na mooy naxaa nii xubbullah boromam lay wax nimal muhaymin anil may li am axtira wala aqma bi mu nee ba ci biir nag mu a ko am sotti mu ne ko mbàkki ma am ci sama borom kenn amu koo fa gis mu kaalaw lam yor ba kaala woo ko ba ma ci jotee ci sama ndigg laa ko takkan fa ma jëm ak guuf nee na yonent bi daal di taxa di ko xaar ngir xëy na fay fa gaa yi baaxee jaaroon fa lay jaar def luy tolloo ko kaas rek nee na mu daal tàmbali bi yang ne yonent bi nabiyun loo sahlun hasimun bayyam huwa al mustafa al Mukhtar, huwa al muhayyam yonent bi dañ tek tank ak kaas dik jox ah japp ni dara jey kaas la waye neena bayiwut na bàyyiwut nubuwatuhu xablal baraaya xaddin jalab loo sab hina jaddu fettiina yuxsaru neena mo xamne ki ne kii yaayoo na kaas neena kaas dem ay pat tanga di ma sotti tàng di ma sotti ma naan ko naqibun raqibun mustajibun musassabun masihun malasu wa mahilun masu nee na mu sànni kopp yi xam ne kii yooyu ay kopp wut ay pot di tàng di ma sotti di tàng ma sotti nee na ma gënee xuus mu sànni pot ya jël ay siwoo tàng di ma sotti nee na ñuy dem mu di ma sotti di ma sotti ba mujj nag ba ma agsee ci moom li rabbi xuróoj yi maa du xooli bi man sili maa xam loo maa xam maanaam min tasal suli nee na mu yenn paan di ma sotti mu yenn paan di ma yenn paan di ma sotti nee na maa ngi dugg rek maa ngi dugg rek li ma walaa xam ni wa waxam ni ma alkabla wala yi xaar fay dal axli lal bëre wal wabla nee na mun a tay paan yi sànni yenn bëri ko ma sotti ci ay ko doon tànke na muy dégg bi mu dem fiir gi mu fiir ci yonente bi sallallahu alayhi yu baax ñuy waxtaani seen mbaax gaaf ñu naan hii ku mel suñu sang boobu ki ku mel ne mu amut mu gëstu leen ne لكل من min al axyaar seen tànneef yooyu baax nañ loolu tuwaakal fadlun wa rubbatun wa maa kam li abdillahi xanaa gisoon doomi abdullahi ji ma àndal abdun la dal abi ñooñu ne pat nee na mu taxat tuuti gisaat ñuy waxtaani seen sang yii sang yooyu kay amuñu tuñ ñooñu nee na mu leen gees na leen li kullin min as-saadaat seen sang yooyu jaaxun wa xurmatun jàmbaar lañ lool tawarkal waaye walakin jaaxal Mustafa al bariyatari ñu ne ko ah ñun ñun dañoo joxe ay téere comme ñëpp de mu ne leen waaw la in jaa bil ayaati rusul taqaddamu waaye fanaalu bika al ayaati si tafadduli ñu naa ah, léegi nag naka pexe mu ne leen xaw ma lu ngeen def yéen de suñ tubaa daal di waat li si ars xat aslamtu kulli bi jaayikum wasaadi ila jannati xayri musali nee na ba mu demee ba foofee nag la dégg ba nee na suñ suñ suñ borom moo jël suñ suñ yonent sallam moo jël boppam nee na sëggal ko ci dégg ba ne ko bu mënee jeex na jeex nee ma ñaan foko sama borom mu may me katan ak tawfiq bu mo meuna a ngacc dégg ba mu jeex nee am sut dama ko naan ba muccu ko ba mu ba melni ne ngar da ngar ba melni degu noor nee am ko fet fekk su ne ko nag ñoo ñi nek ci mbott yi doon ngox ci taatu deg bi ngir bëgg naan su fekkente ne bëgg naan dañu bëgg naan nañ top ci yow ba am sa ngërëm do ko meuna naan nee mu ne ko ah, ñoom de bu ma leen wanee duñ xam ne yor mu ne ko waaw lool moy lan ku'uusuka tasxiini bihaa saabu saaratin wala yaqut tafaytin axdila bahra wala laa kon déeg boobu ku ca bëgg naan ci Sëñ Tuubaa ngay topp Sëñ le mu ne ko ñooñu xamuñu ko te bu mu ne ko mën nga asri la fi yeddi wa ma rumtuhu min malikin xaaribil an yi nu ko suñu Isaa Jeen daan daan daan daan firee suñu Isaa Jeen nee na simaamu li mu firi mooy koo yaakaar ak kum ak ka ko yaakaar lam ko yaakaare bu ñëwul ci suñ tubaab sotti lu way amna ko tey ni ñi japp ci sëñ nitug yàllaak nitug sunna laak mom de da day doxat yooyu yëpp suñ tuba kep lañ bëgg mom lañ mo ñor ni suñ tuba mérite ñun bax na kat bëgg nañ lu way am ci lu bax nak yeen nañ la ko yàlla la jik ku am sa nitug yalla keneen ku ñu suñ tuba alhamdullilah yalla la yobbu ci yalla way ñun suñ tubaa lañ soxla ñu waaw suñ xam nga am na ko fi di ngeen fan yële naan ben sëriñ bu wax ne bo legge bu ñe yalla nga ne yonente ba nga ne ba nga ne bu leen dem ci bi Cheikh Mamadou ko am ñu koy dingat dañoo dégguñu alxuraan dégguñu alxuraan sëriñ Tuubaa du du borom mo wax ne yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim waaw yow sa passeport ah ak sa bii ak numéro sees bi nga war a toog sa poste ci avion bi lépp ak lekk gi nga war a lekk naan gi lépp sëriñ bi moo ko yor ah yow nga bàyyi ba sëriñ bi mu yor say papier yor sa lépp ngay waaxu ci koo xam ne xamula mësulaa gis nga toog di ko xaar te ubbeegut taxam moom am dana ubbeem nit wóor nañu ñu dund nañu jàpp ci Sëñ bu ñu dee ñu jàpp ci Sëñ Tuubaa buy neex ñu jàpp ci sëriñ bi buy naqar ñu jàpp ci sëriñ bi nee woon si am sotu jaxate mu ne ko mbàkke mu ne ko am sotu loolu ñuy wax lënd mu bàmmeel yéen a di ko xalaat de xanaa raglu na ci yéen mu ne ko mbàkke raglu na lool mu ko ragal ngeen luma ta ragal seen sut ne ko way Mbàkke yaakar nañ la fa sëñ ba ne gees ne ko yaakar ngeen fa ku mat a yaakaar ko am sut mu ko Mbàkke mu ko bu ngeen saxé ci lima bëgg lolu yi ñu naan kuñ kuñ denc ñu naan kenn mëna mënula ko fi dara jëfum kep ko mëna dara mu wa waaw bu dé ko aju ci man fa ñooñu télé fa la tàmbalee am na ñoo xam ne ci pax mi rek lañ yem gunge la ñaanal la suñu tubaab nee na foofee ca pax ma laay tàmbalee sa mbir ku ci sax ci li ma bëgg te nekk ci li may nekk ci li ma bëgg ba li may tere nga sore ko bu ñu la dugalee ci bàmmeel nee na loolu ñu naan suuf tiim na ko nee na suuf du la tiim may dox su diggante suuf loolu suñu tubaab moo ko kon nañ jàpp ci suñu tubaab tamit ko boole dara suñ julli yeeg suñ woor yeeg natt asaka yeeg aj màkka yeeg yëpp nañ ko def ku yaakaar ne sa sa julli yi ak sa woor yi mën na la yóbbu fan xel sax ngaa toskare te yàlla ku mën a patiente la nañ fa suñu yëpp suñu dossier jox ko sëriñ mu yóbbul ni ko fañ bëgg buñ ko defee leen bëgg lépp danañ ko am saahir ma baat na te takkaayoo ñetti takkaay yi moom lay mujjee ñetti takkaay yi nañ ko takkaayoo mooy li ma daan wax rek pas-pasu Cheikh Ibrahima fa ñambar Cheikh Abdoulaye Lahat yërmaane suñ buñ ko lay jëlee takk ko suñ dugg fu ñu yóbbu fu ñu bëgg a dem nañ ko te boole suñ bopp nekk benn fexe ba bokk ca bayitu suñ tubaa wooye nga xam ne moom la suñ tubaa suñ seer yu mujj wax yaa rabbi ñu fexe ba bokk ci bayit woowee fexe ba bokk ci wal tudxil jamia fi makanoni xëy bi nga xam waa junna ca mëndamul fosé fexe ba bokk ca inimal muminoona ixwatun joojee ne ko suñ falu firée woon suñ falu dane inimal muminoona mbooloo murid mu bokk fu ñu jëm di yëkkateendoo di tegandoo ixwatun luñ songu daan ixwatun luñ songu daan ko loolu suñ suñu si farlu fi kon nañ boole suñ bopp yéenente jàmm raxas suñu xol te nangu dogal yi dogal yi suñ biir te jël Sëriñ Tuubaa teg ko fa ko yàlla teg ñu teg ko ndax moom lépp ba mu sotti daraam taxawut te ma ngay dox te ya mag ñi daan sàkku ñu koy sàkku ko ñaan toog ci kanamu sëriñ léegi ngay gis ko toog ci kanamu sëriñ naa ko ñaanal ma ngërëmu suñ tubaa ngërëmu suñ tubaa du lu ñu ñaan dañuy takk ndigg dem sàkku ji ñaanal ma ngërëmu suñ tubaa kenn du ko ñaan dañuy takk dem ñaanal ba mu jub day fekk nga nekk ci tànk jub ñaanal xaalis day fekk nga nekk ci di liggéey ku gëmante wut yow mu nelaw loo te Cheikh Ibrahima daan na wax ne mag du xam ne xam di ca tàbbi mu wóor leen li nga nekk ay nax la nga di ca tàbbi loolu bokk kon loolu laa laa amoon ci dama ci yokk ñu gën a góorgóorlu boole suñu bopp bàyyi xiiroo yi ak ŋaayoo yi te la Sëñ Tuubaa waxoon rek am naar bu ko laaj ne ko dañoo gis ne sa taalibe yi liñ la bëggee mosuñu ko bëgg kenn te ñoom dañoo bëggante ci seen biir lu waral loolu sëriñ bi ne ko dama leen boole loo xam ne dañ ko séddoo gudd daa am lu ma leen boole te séddoo guñ ko bés bu ñu ko séddoo rek tàqale ko mooy jëmmi Sëriñ Tuubaa boo léegi Sëriñ Tuubaa séddale ñu ko ku ne jël sa wàll dem sa yoon li fekk nag ñu ngi koy bokk nag nee na ñoo tàqale ko moo tax mu wax ko loolu sëñ Mouhamadou Lamine Guèye sëñ Mouhamadou Lamine Guèye xam ngeen ne mas naa defar toolu xat toolu xat boo xam ne daa defar lu néeg sot ñaari junni xalima boobu sëñ baa ngi ci géej gi mu dugal ko ci biir néeg bi ne bu subaa bu mu fa fekkee xalima yi baye boo mu delluwaat te xam ne sëñ bi du ñëwaat ñooñu dañoo wóolu woon sëñ Tuubaa bu fekkente ne fekkaatu moo fi xalima yi nag baye boo la sëñ bi digle woon ñu dellu te xam ne dana dikkaat ba mu dikkee ubbi néeg bi fekk fa fekk fa xalima yi ca déwén sa la sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana dem Gabon ba maagee lu ko sëriñ bi wax Mohamed Lamine Mohamed Lamine Gaye day addiyaam di agsi na bi mu ñëw daa fekk génn xalima rekk ma dese ñaari génn xalima yooyee sëriñ Tuubaa wax nañ ne sept tonnes cinq yi ñuy wax ci la ko bind te bisa ngi ci bisi lii ñuy def tubaab yi ñu koy dàq ndax la leen suñ Tuubaa waxoon dégg nañ ko te xam nañ ko inni uqaatibu nasaara turra fi ardihim kon wéetaay yi suñ Tuubaa woowee mooy suñ wéttaliku gii gàmm gim njëkk a def gim gim gim mujj def Tuubaa taalibe yi di xëccoo ak daram ba xottite ko nee na ak gàmm gam njëkk a def Gabon nga xam ne togg naa ginaar ba mu ñor mu topp guddi gi di wër kum ko jox ba bët set te gisul ku ko lekkal nee na lee wéetalu ko lii wéetalu nee na mbooloo mooy ma wéttalu ko wéetaayam wi wéetalu ko ndax bi mu dem yàlla la fi bàyyi woon bi mu dem moom la yóbbaale te mu dikkee moom la fekkat kon ne sa bàyyi ak a nekk gaynde yi war ngaa fexe ba xongali bët bu ko la gis xam ne am na yéene am nga yéene ci kon murit day jub murit day set ci biir set ci biti murit day bëgg lu baax bañ lu bon murit day gondi moroomu muritam lu mu koy gondee ni ñuy wax gondi boo solee sa kiris koros maa nga woto say sunu mënuñoo gondi li ñuy gondee mooy sa lu mboq teg ci sa baylaat woto sam nel gàddu sa doolu xasida di naan sa kafe naan jërëjëf sëñ Tuubaa di wër jumaa ji kopp nga ñu mën a gonde boo ñu gisee suñu xel dem ci sëriñ bi waaye loolu loolu tubaab yi la ko ëppale fuuf tëggumuñu yalla kon yalla yalla boole dimbali boo leen defal tawfiq boo leen defal taysir sax ci suñ tubaa faw dama ko bare dara lu leen way mën wax lu japp ci suñ tubaa mu ngi leen yobbi ci musibam musibam naaru la leen yobbi yóbbu waaw suñ tubaa ku ko bañ yalla rak sa ndik suñ ku ko tupp yalla rak sa ndik saqa'u man lam yahwani qad kutiba fi lawhika allasi yufidul kutuba لخير انتهى بالمنتقى كل سي سخا وينحو به نحوي سفيد وسوتقا لولا لا اله الا الله لا يالا دوغال نانكو ديف نيكو يالا ديف ني نوبل لولو موي واخ بوي واخ مباخو سن توبا نك اسكي رك تي ورا تول واي بو سب خال نيبي سي سن ني نغي جابال ني لي خاص واي لا تاخ نغي جابال ني لي خاص موي دانيو تولو لي سب سيرني سيرني سن توبا تو سن توبا يمو تو يالا بيد يمو تا كين تي فن تي لين تي نين nañ ko kennal fuñ toll kenn la suñ Tuubaa du ñaar kenn la kenn